bi am na solo lool di siyaare mbooleem jëmm yi nga xarit yi ne wax dëgg yàlla ñoom it ngi fi toog sëñ Saliou seen sëñ euh, euh, ñëpp daal bàyyi wuñ kenn mbooleem ànd dooleel Carrefour yëpp euh, ndeysaan di siyaar mbooleem ñi nga xarit ni ñu ngi teewlu rajo bi fi mu doon nii waxuma dara waaye xam naa ne nit ñi ñoo dugg si moom wax dëgg yàlla ah, di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex ci barke Serigne Saliou jërëjëf sëñ Baye Fall Jàmm sama xol dafa sedd ko wax dëgg yàlla li ma bëgg wax mu doon mënu ma ko wax <laughs> jërëjëf na Birahim Sow nañ ko mën a am léegi-léegi moom tam moom ñu ngi liggéey fii ci biir kër gi ah, nekk ci rajo Carrefour FM Mbacké yor fi émission bi nga xam ne moo di Maam Thierno tey ji nga teew ci euh, bisu safar gi nga xam ne mooy quatrième édition ñu koy amal fii ci rajo Carrefour yan kàddu nga ci yëkkati Maam Thierno bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa Boki auditeur yi auditrices suñu radio Carrefour FM 96.1 la voix du futur ñi nga am mbékté ak contenté lool di addu ngén di teewlu ak fu ci way mëna nek rek muy gor jigen mak ndaw di nuy ak xaar nak Maulana Serigne Muntaha Mbacké Basirou Khalif général kulu murit ñi ngi koy ñaanal Yalla na sa borom may ko fanu gudd and ak wér ba limu mu ci diiné islam ji mu défé ko nam so défé ko nam ko sobé tey am bis boo xam ne bi ñu ngi koy def muy bisub safar di bisub sant ndax bis bi nu jëm dafa rëy rëy goo xamante ne yii ndax mi ngi mel ni tey nga dëgmal foo xam ne fii dafa bëri ndox mbott ya na nga déggee ñuy ngoox ca ca ca barab ba moo lay war a xam ne bee bëri na ndox nee naan déeg bu baree am ndox mbott yaa la koy tegtal euh, fi nga ñëwee ci waxtaan wi am na solo lool Baye Alassane ñi lay jaajëfal bu baax a baax waaye tey li nga xam ne bi soppe def nañ ko di def safar di sant jëm ca bis bu tedd ba di ñaan yàlla na sa borom def ñu yàgg koo def te soppee rajo Carrefour FM ñu nekk ñoo xamante ne bii góor ñi ak jigéen ñi am nañ taxawaay boo xam ne bii li naan doolee jën ndox kon dafa nekk loo xam ne bii lu am solo la lii ñuy def nii di ñaan suñ borom fayal leen boppam waaye di nuyu tamit suñu jëwriñ ñi nga xam ne bii mooy kilifa kër gi di sëriñ Ahmadou Jong baay Jagal ñu ngi koy nuyu moom te di ko siyaare bu baax a baax ndax lu mel nii bu amee moom xolam da ciy sedd da ci bég ndax moom saa su nekk rek lépp loo xam ne bii luy defar réew mi luy defar askan wi loo xamante da ci interpeller askan wi pour ñu gën a mën a xamaat kenn ku ci nekk sa taxawaay ak sa pësteef loolu Ahmadou saa su nekk da ciy xëy di ci gont kon ñoom it bu fekkee dañu def taxawaay bii li wér te mooy xolam sedd na ci bu baax a baax waaye lii auditeur ak auditrice yi nga xam ne bii ñu ngi teewlu rajo bi vraiment lii tamit seen xol sedd na ci bu baax a baax di nuyu di ko siyaar bu baax Baye Fall Thiam mi nga xam ne bii sunu xarit la sunu soppe la sunu la ñu koy nuyu di ko siyaar di nuyu ki bii Moy jëwriñ ji nga xane bi mo ne ci caméra bi moy Modou sar ñi ngi koy bi Modou Bara sar ñi ngi koy nuyu momit diko di ko bu baax baax di nuyu mbollem soppe yi nga xane bi ñom ñoo tew fi ajaratu Soda Gueye la Linguère ak mam fati Kara Soda mu ndaw Soda Gueye la Linguère ñom ñep ñi ngi leen di siara bu baax baax waye man fuma bëgg ñëwé dañoo jëm ci bis bo xane bi bis bu tedd la bu mag muy bisu màggalu Touba mu nekk bis bo xamanteni bi fenn fu ca nekk ab talib dana fa jóge wala soppe wala koo xam ne kii fu mën a bokk waaye màggal gi moom saa boo xamante ne bi ñëw na ku bokk ci yoon wi dana ñëw ku bokkut ci yoon wi dana ñëw ñoom ndax dafa am ñoo xam ne dañoo bokk ci yoon wi am ñoo xam ne bii nekk nekk ay jullit te xam ne ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul dafa jaboote diine islam ji yëpp am ci ñoo xam ne bii bokkuñ ci diine waaye am nañ ci soppe ak cofeel goo xamante ne yi saa bu màggal jotee dañuy teew si man ma bëggoon li nga xamante ne bii mooy sensibilisation gan ñii ñëw surtout sunu mbokki sëfoor si nga xam ne bii ñoo war a jël gan ñi indi ñi fexe ba bu ñu jëlee euh, njaboot boo xam ne dafa ànd ak doomam ànd ak ay waa këram ñu indi leen ci jàmm bañ màggal si jàmm mën nañu baat jàmm ndax euh, ñi ngi déglu Cheikh Mamadou Bachir mu euh, ndigalul Cheikh Mountakha nga xam ne jàll na ko neena bu soñoon ñëpp danañ màggal si ci jàmm ñi buwaat te benn accident du am. kon lu mel noonu nag mën naa ne li tax muy ne mën a nekk mooy sëfoor si ñoom ñooy def ndànk ñi def ko code la route Sëñ Fallou jàkk bu ne yool bu ne yaay nga ne yool bu ne tacc nga ne tekk safar si bu ñu defee ndànk rek danañ mën a jël kenn ku ci nekk li nga xamante ni bii moom nga war a jël ci màggal gi muy sa wërsëg yàlla bind na ko ba pare loo yeex yeex da nga ko jël waaye loo gaaw gaaw munoo fexe ba li nga xam ne bii moom mooy sa wërsëg ci màggal gi munoo fexe ba jël ci lu ko ëpp kon lu mel noonu ku ko xam ginnaaw boo yeexee jot sa wërsëg soo gaawee jot sa wërsëg defal ndànk rek ndax ndànk lu tee egg fa nga jëm te boo dawee ndànk àgg ndànk wala boo dawee bu baax tamit maanaam day am jiyee yoo xam ne daw bu baax baa koy waral te it oto yi léegi yu ci baree bari bu dee yu bees yi gaaw nañ gaaw goo xamante ne bii saa boo dawee lu ëpp pour nga maîtriser ko day jafe am ci oto yoo xam ne bii amuñ benn niveau bi ci ba xamante ne yàgg nañu te seeni organe dëgërut te saa boo ko dawalee yenn vitesse yi euh, mën ngaa dem ba gis ci loo xamante ne bii su la arrivé fekk ngay daw yenn alir yi soo boobaa doo ca mën a mucc kon ñi ngi ñaan support yi lillaahi wa rasuli ngir jëmmi Cheikh Mamadou muntaha nañu def ndank ba jël gan ñi indi leen wat leen te ben accident am te lolu mën na nek ndax ñi ci commencé dañu def ay waxtaan ci kurel gi nga xam bi mom lañu bok nga xam ne dañu def dépendance gratuite muy radem ñi ngi sensibiliser ñi nga xam ñoy ñooy support bëgg timit ñuy def ay entretien ndax danañ leen gatondu and ak ñom gungé leen timit ñu mëna a wat ci képp ko ci xamanteni ki ñew nga do am ben problème ci pan bo japp